du nuyu mbooloo mi di si jiital leemee suñu mag le frère et collègue Pape Bassirou Diop de la commune sama Simon le frère Alioune Sow maire de la de Thiès Ouest du nuyu bu baax les honorables députés madame Fat Ndiaye Tamsir maire Garmi Fall Ami Collé Diène maire Mamadou Faye ñoo ñëpp honorable député lañu du nuyu les coordinateurs le coordinateur départemental Mamadou Dialane Faye mais du la déglu du nuyu bu baax l'ancien président du conseil régional de Thiès suñu frère Mor seen du nuyu les autres coordinateurs de communes du département du nuyu les anciens du nuyu les femmes avec leur forte mobilisation d'aujourd'hui du nuyu les responsables jeunes du nuyu les militants et sympathisants du parti réew mi du nuyu bu baax presse bi nga xam ni moo fi teew dañu fee daje mais dama waxoon sànq ci nasaraan balaa may liir motion bi ma sargal responsable parti parti mi dans la département de Thiès ndax élection yu nga xam ni moom la ñu génn <coughs> dañoo def benn ngañaay bu am solo ngañaay boobu moo tax le parti Rewmi moo nekk la première force politique du département de Thiès avec plus de cent vingt mille voix maanaam téeméeri junni baat ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu ñu rawoon le candidat Macky lu mot ñaar fukki junni baat ñu rawoon la candidat Sonko téeméeri junni baat kon tey bu ñu toogee fii dajale responsable yi war nañoo sargal. ñooñu ci seen liggéey ak sacrifice bu ñu def tey na la fédération départementale moo fi daje pour càmbat li nga xam ni moo xew ci fan yi ñu génn muy duggum parti réew mi ci gouvernement yi dañu ni bu ñu càmbatee bu ñu xoolee li nga xam ni mbas bi indi na ko ci àdduna bi ndërmeel économie yi rawatina koom-koomu Sénégal mi nekkoon 7 pour cent daanu ba 0 virgule 7 pour cent ak jafe-jafe yu nga xam ni koom bi indi na ko ba xale yi nekk ci géej bi lu mot ñeenti téeméer ak lu topp génn àdduna ñu xool ni aussi situation bi nga xam ni moo nekk ci sous région bi Mali dalul Guinée Conakry dalul Côte d'Ivoire dalul ñu xool aussi également mooy li nga xam ni gis-gis bu leer bu suñu président am muy le président Idrissa Seck ak bëgg bu mu bëgg Sénégal te loolu mi ngi ko firndeel si ñetti téeméeri parti ak lu topp moom rekk moo am parti bu tudd réew mi maanaam du ma tuddee sama parti dara réew mi kese dong moo ma ñor bu ñu xoolee également suñu participation ci dialogue national bi ak taxawaay buñ fa am ñu xool également tey soxla bi nga xam ni réew mi am na ko pour mobiliser doomam yépp pour li nga xam ni daanu na ci Sénégal ku nekk dugal sa loxo te kenn warul tànn yoon bi nga xam ni mooy seetaan ndax seetaan lu muy jur fajul dara bu ñu xoolee loolu yépp ñu ni ñun ñi nga xam ni ñooy responsable département Thiès lii nga xam ni suñu président Idrissa Seck moom la def mooy dem wuyu ndax ndaxte tey devoiram la seetaan waru ko am na xam-xam bi am na dayo bi te tey bu bokkee si ñuy seetaan ëllëg histoire du dina ko joxoñ mu ni ñun tey les responsables du département ànd nañ ci du ko jàppale nekk ci ginnaawam beneen bi ñu ni ñu ngi féliciter du encourager suñu frère yi nga xam ni tey dugg nañ ci gouvernement bi muy le frère Yankuba Diatara ak la frère Ali Sali Diop respectivement ministre de l'économie numérique des télécommunications et ministre de l'élevage et des production animales du leen ñaanal suñu boroom li nga xam ni moom yaakaar bu ñu am ci ñoom ñu mun ko mottali mais également ñuy ñaan responsable yëpp yu nga xam ni ñu ngi ci Sénégal ñu ngi si département bi ñu ngi ci diaspora bi ñu joxonte loxo bokk ndey bokk baay ànd jàppale suñu leader la président Idrissa Seck ndaxte leader da nga koy wóolu boo ko wóoloo fu mu yóbbu incha allah soreetul dara donc ñu ngi feddaliwaat suñu colère suñu confiance suñu engagement derrière le président Idrissa Seck pour que Sénégal bu dal Sénégalu jàmm ak Sénégalu naataange ñu ngi leen di gërëm. pour un sursaut national devant regrouper toutes les forces vives de la nation considérant la vision éclairée et le sens élevé du patriotisme di président Idrissa Seck pour servir le Sénégal considérant la participation remarquable du parti Réumi dans le dialogue national, précisément dans la sous-commission dialogue politique. Considérant la bonne posture en de pareilles circonstances du président Idrissa Seck de répondre favorablement à l'appel de la patrie et de s'impliquer activement au redressement économique et sociale du pays. Les militants présents à cette rencontre, unanimement, soutiennent le président Idrissa Seck pour son implication dans la gestion des affaires du pays et réitèrent devant l'opinion publique nationale et internationale leur ferme engagement à l'accompagner dans sa vision politique et économique pour le Sénégal. félicite et encourage nos frères Yankuba Diatara, Ali Salih Diop, respectivement ministres de l'économie numérique et des télécommunications et ministre de l'élevage et des production animales. Demande à l'ensemble des militants, responsables et sympathisants de Réumi, du département de Thiès, du Sénégal et de la diaspora à s'unir dans un esprit de solidarité derrière le président Idrissa Seck pour une réussite dans les nouvelles fonctions et missions étatiques. Renouvellent leur loyauté, leur fidélité, leur entière confiance et leur engagement au président Idrissa Seck pour un Sénégal de paix, de sécurité et de tranquillité. Que le bon Dieu bénisse le Sénégal.